jërë ngeen jëf mbokk wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen daan nuyoo di leen nuyu fii ci wasaare émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo la xel yi dem su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci dem ak lu làmb ndax tey jàmmaarloo day boole ak ñi nga xamante ni duñ ay mbër waaye mën naa ne ay supporter yu mbër lañ wala xaritu mbër mi lañ wala ay amateur lañ ci làmb tey nag mu andi leen li nga xamante ni làmb yu bees day doog a taxaw ba ki démb ci làmb lay ma ne ko ndax soo déggee combat ki nga xamante mooy Cheikh Tidiane Niang euh, sa xol sedd ndax mbëntaan la su ma dikkee ci benn côté bi ne Ndongo Lo xale bu gën ah, ñaañoo nag seen combat dafa taxaw ñu ci félicité ki nga xamante ni mooy Mbaye Yékini ndax moo taxawal boobu combat tey nag ñu ànd leen fii ñu war a jàmmaarloo fii waxtaan ku ne xam ne jàmmaarloo day neex li may wax sax xaw ma ma boobu réew mi doomu waaye su ma neexee ne xale waaye nii ma daal ki nga waaw delloo naa la ziar ci loolu nekk yaa ngi si jàmm bu baax. sant yàlla bu baax a baax. di nuyu waa àdduna yëpp. Mm-hmm. di nuyu waa parcelle. ñoom bu 26. di nuyu waa Niodior yëpp. Mm-hmm. di bëgg ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp daal. dafa mel ne da ngaa xaw a sonn de ndax su ma juumul dafa mel ni voyage la jógee. waaw voyage laa jógee Touba laa jógee. Ah. ba léegi dama yegg gaal rek te voyage ñëw. ana waa Touba. waa Touba ñu ngi fa rek maa ngi noonu di neex rek. Ah, ana Cheikh. Cheikh mu ngi fa rek. Cheikh Tidiane Niang. Cheikh Tidiane Niang mu ngi fa rek. Saliou maa ngi lay dégg. ñu lay fay. fay lu baax baax a baax baax. ana waa Grand Médine waa parcelle waa Grand Médine waa Parcelles. ñu ngi leen di nuyu Parcelles un vingt six nuyu waa Grand Médine bu baax a baax a baax a baax parce que gis nañu ñu taxawoo. ana hmm. baax a baax non mi ngi fa mi ngi ci entraînement mi ngi ci waaw ñu ngi góorgóorlu daal. lan moo leen dugal ci ak Yaya Niang. waaw ñàkk adversaire. Cheikh Yaya Niang suñu xoolee ci mbirum làmb ñu ne moom ci làmb. ci làmb ci làmb bëri avec frappe parce que Cheikh Tidiane Niang lutte simple lay bëri. frappe cinq combat la kon ñu nag moom du combat quoi mais dañoo jël combat bi pour se relancer waaw. mooy da parce que ñun ay dañ nekk gone ba tey ci làmb lañ ne kon xam ngeen Cheikh Tidiane bu baax. Mhm. jël Cheikh Tidiane Niang est-ce que a mu làmb yi góor yàlla la booy seet lu nooy doo bëri fi bën bëri ah, loolu kon du làmb bëri da ngay seet ñu dëgër këj nga daan leen dem seet leneen Cheikh Tidiane Niang bu ñu ko daane moom fu ñu yóbbu sax seet yaa ñaar waaw soo leen la ne rek. la ñuy yóbbu. daal seet yaa ñaar yóbbu leen fenn ci làmb. yóbbu ci làmb kuñ mujjee bëri dañ koy jël parce ñu mm-hmm. jël suñu làmb wala jël seet yaa ñaar. Diop yaa ah, mu am adversaire bu mel ni Cheikh Tidiane Niang. Mm-hmm. ñu mën bëri ak qualité bi nekk ci moom nga boo ko daanee yóbbu la fenn yaakaar naa ñiy déglu léegi ci bëre. Hmm. nga xool ci bëre. ci arène bi li fi Cheikh Tidiane ñoo waree ak Ndongo lu ñu wane ci bëre. koy jox ko moo daa bëre ci arène bi. Ndongo Lo moo waaw fop. Ndongo Lo moo ëpp combat. est na kaa jur. mën naa jur noongo séeréer la séeréer da ngay nekk dëkk di rey sa bopp di fa jaayante <laughs> ba ñëw town soo koy bëree di nga wàññi quinze ans seet kan non non ki gis ci télé mu ne gelam bi da ko bàyyi bañ may ko <laughs> loolu dëgg daan daan ko ak ak ah, ah <laughs> moo ko fi wax de moo la gërëm <laughs> ah, ko maye quoi amagu la vie vie privée boo ko xasee ba dévoilé fekkee loolu moom mu wax la nga koy laaj hmm. lu tax ñu jël Ndongo Lo mooy problème adversaire bu fekkee moom dafa dafa am problème adversaire uh-huh. ñun ku ñu xool xam ne suñu avance dañuy taxawal depuis kañ am na ñu ko fi jot a mais lan lañ ragal ci Cheikh Tidiane Niass. ah liñ gis ci moom. mais que tamit du gàllaaj. gàllaaj mais ci làmb la. seen dernier combat bi ci làmb la bokk làmb lépp la amul lu amul ruq buy sedd mystique bëre doole fépp nit mën nga nit na la ëpp mystique nga ko doole loolu compté wul ci làmb. tolloo taay bi maas lépp yéen a ko tolloo te Ndongo Lo daanaan bëre la. waaw loolu yëpp mu ngi ci tamit de. waaye essentiel daal li ma koy xamal daal. Mm. jël te fii kekk la Saalum ma koy déggee dafa mel ni xam na leen de. fii kekk la leen dafa bon. la demul dafa nekk ci yoonam day dem. garaawul. defet teg naa cinq defet six defet. ne qu'importe mais ci làmb noo nga wane ci làmb arène. yow li nga ci defet bu ko Cheikh amee ma bàyyi ko. nga bàyyi ko waaw ñun nag dañuy ànd ak ndongoloo te yàlla rek tax ànd ñoom moom ndax victoire ànd ñoom moom ndax defet suñu ànd ak moom dañuy ànd ak moom te yàlla rek tax boo amee leneen defet ñu sante ko yàlla relancé wu xam ne victoire mën na am suba moo dañu ànd ak moom du la ma yëfu gaynde gaynde day war ko ah, ñu dañuy rëbb di sooy teel a sooy am ah. <laughs> mais démb ba ñuy sooy commencé teg lañ six de six combats six victoire lañ teg ay doomu jàmbur lañ doon daan mais défaite bu ñëwee rek ñëw na de après ñu sant yàlla xam ne làmb la da ngay wut tey nga suba nga ñàkk. sport la quoi mais avec Cheikh Tidiane Niang yàlla ci yàlla may ndam te dinañ la bëri loo ba Cheikh Tidiane Niang xoo bay ñaan ndox. pour ñooñu ko mënul bëre. daan nga saan nongo jamono géej. Hmm. fu ne saan nga ko fa. <laughs> yooyu la ñuy def Cheikh mbër hmm. hmm. hmm. loolu nga jàpp. bëgg sax Cheikh Tidiane ñëw def si différence ñëwoon ko ne mënul bëri li na bëre mën na bëre. Ndongo na bëre mais damaa xam ne làmb ju neex la nar nekk. Cheikh Tidiane dañoo war a Mm-hmm. bëre simple ak lutte avec frappe c'est deux choses yoo xamante ne gars yi ñu ko ba bokkuñu. dañ mu dugg ko xoolee. Mm-hmm. xam la mën. amul benn bu mu ci bëree boo xam ne def na ci benn mm-hmm. défaut boo xam ne da koy jugé. dernier combat mu mujjee rek mais ku mujjee bëri waaw ku capitaine. capitaine capitaine ah, kamay capitaine fu toj. mais mbër la man ka ma capitaine mais yow yow yow nanguloo dem bàyyi ko. yéen demul de. biñ lay xam kenn xamul. Cheikh Ndiaye na xale bu ndaw. Ah. bi génnee foofu moom nongo ak Cheikh bu ñu wax bu la xale bu ndaw man leer na man ni Cheikh Tidiane Niang moom mag man loolu leer na man yow man mi wax yow sa yaa mag nongo fop man mun naa la mag man maa mag nongo fop laa la wax <laughs> kon kay xam naa la woon yow nombre bi nga xam maa la ko gën a xam yow. yaa ma gën a xam. wax ma nongo dara kon. comme ça yaa ma gën a xam man damay suivre hmm. ko xamee. Hmm. yaa may dégg. mais yow boo xamee nongo. waaw kay. suivre naa ko ci làmb. ci làmb nga ko xamee. yàgg naa dem stade ko suivre daal bu fekkee làmb c'est que ndongo bi muy bëree. Mm-hmm. loolu cheikh bu ko fa xaar. mooy comme lan. ay bëriwu jinne jaar genre quoi. bëri ak def. waaw kele amoon wàcc sélection dafa nekk mbër boo xam ne. kele ci kaw kele bu dóoree bii bu échoué deuxième bu la fekkee suuf na non certes bu la wax kele su kele ñaari kele am ñaari kele la ñaari kele la mooy xëcc la nga mu taxabal la loolu la am kele boobu la am kele caxabal bu bañee mu daw takk la ñaari kele yooyu laam soo xoolee Cheikh Tidiane Niang moom lay daanee day daw mel ni kuy arrière caxabal la wéeru la loolu bu essayé mu daw takk la ñaari yooyu la ah, mooy ñaari kele mi ma ba ba simple ngeen di xam moom ngeen di def est que bu ndongoloo xeex ak yéen ngeen ci am problème. non loolu fekkoon bu xeexee man ba tiit. Mm-hmm. konoon combat yi que dafa xeex ma gis xam naa ne xeex bi nga xeex te na ko. ci baalu doomu daanu di ngeen mujjee def kàddu yàlla moo tax. non lu question mm-hmm. jiital gardam jiital teg tànkam téye gardam rek di nga xam kii ba xam mën na xeex wala mënul xeex. comprendre Ndongo Lo xeexam jaarul yoon xool ni ko kii def général ko duur ba gisul général nga mais koo xamante ne da ngay daw deux taxaw Ndongo ñëwaat nga cokkaasaat dawaat deux taxaw loolu man man sax sama bëri Ndongo def ko Ndongo fi tuuse nga laaj ku fi tuuse Rambo dama ko dóor muy daw Rambo bu Gambia dama ko dóor muy daw kan ñàkk bi ma koy ñaari combat lañ bëri ñaari combat bu njëkk bi ngay wax wala bu mujj bi bu mujj damaa daan waaw. yow ñax yow ñax. Mhm. mënoo ko de. mënuma ko premier combat bi dama ko sem ba tan sem ba teel ak moom laa dem. nangu dafa am problème mu luur. nangu dafa am problème mu taay. problème mu luur. comprendre nangu dafa am problème mu luur dafa am problème mu taay. Mhm. nangu la amul cër ci laa mujj de day xaar rek. problème taay yow daa mel ne. est-ce que Cheikh Tidiane Niang luur la ci Ndongo Lo. Cheikh Tidiane Niang du luur léger la. Mhm. mais moo ëpp chance Ndongo Lo. Hmm. Hmm. ci lamb waaw. moo ëpp chance Ndongo Lo ci lamb foo teg loolu koo xamante ne seen combat nga fi ak moom kenn tojogoo Ndongo bëgg laa dimbali may la bëgg Cheikh Tidiane Niang bëri na ci ñoo xamante ne boo génnee ci laajte Cheikh Tidiane Niang xamuñu ko. nañ nañ waxtaan rek nañ génn fii boo yoree li ma la wax ñu génn hmm. ñu def micro trottoir nga laajte xam nga Cheikh Tidiane Niang ñu la xamuñu ko parce que suivre ñu lamb bàyyi ma yegali nga dem fekk koo xamante ne day suivre lamb avec frappe nga laaj ko la xam xam naa ko ci simple. Ah, muy bëree ci frappe bëriwul. parce que ah. laaj xam ko laaj ci Cheikh parce que mu ci lamb bi laa d' accord Cheikh Tidiane Niang yàgg naa bëri. nekk na dëkk ba seen dëkk bëri na fa ay 15 ans yooyu soogay ñëw fii soogay bëree. Ah, bàyyi jiitu ci lamb boo waxee su fekkee da nga bëgg ñu wax la <laughs> de damaa xamante ne man âge mhm. demal ci dëkku séeréer yi. da fekk xale boo xamante ne ni sept ans la am commencé bëri. mais fi nekkul dañuy teel dugg ci lamb. dañuy teel a dugg ci lamb teel eh. mais duñ teel a toj. Eh. parce que simple lañ mën a tojee. Hmm. bëri na fi ay mbëru séeréer yi calculer la mbëru séeréer yu toj simple toj frappe. kii du séeréer. waaw. mbëru séeréer Ah. toj simple hmm. toj frappe. <laughs> teg di man Yékini dafa mos simple bi rek baleen fa ñëw ci frappe. Eh, yékini ba ba ko gaay ba mu demee ah. champion d'Afrique dafa eh. dem rek ñëwaat bàyyi na mais boo ak ñi nga xamante ne nii. gis nga rëg rëg def ci mbapat déglu rek. Hmm. ci mbapat. Hmm. suñu demee bay wax rek rek la ñuy xoolee Yékini. je pense la. Yékini li mu wane ci mbapat bi. Yékini dafa mbapat. loolu amul fooy toog di ma rek Yékini. Yékini dafa mbapat toj arrêt. comme mbëru séeréer yooyu ngay wax ñi nga xamante ne comme ay ñoom rëg-rëg nga wax ak euh, Cheikh Tidiane Niang ñoom dañuy dem baa meegal rek baa meegal ñoom dañuy dem lutte académique di bëre seen biir ñu teg ay 10 millions ñu dem toj daan Yékini amul temps boobu noonu nga booy am booy dafa dem championnat d'Afrique la dem ñëw bàyyi na simple mi ngi ci frappe concentré wu ci frappe bi suivre ma Yékini laajtewaatal waxoo carrière Yékini. laajtewaatal ba pat Reug Reug nii laal na séeréer. Mhm. te teew dafa toj arène bi lu mu fi def barki Demba Ndiaye. waaw amul chance. da nga mhm. naan bëriwul. mais loolu am dama ne li ma la waxee laal benn yoon du ñaari yoon. Mhm. mais lan moo tax ngeen nangoo jël ci Ndongo Lo mu jógee ci defet ngeen toog bëriwul leen ngeen jël Ndongo Lo. waaw ah, pour ñu may ko buzz tamit nag Ouzin ah? pour ñu may ko buzz parce que moom tojul kenn xamu ko Ndongo ñëpp xam nañ ko. boo bëree moom nit ñi dañ la xam d'accord quoi nit ki da koy loo bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ nag nangul ko a daw booy di ngeen xam ne kër bukki ñàkkul coow barki borom duwaa <laughs> euh, ah baan ah, ah, que boo yoree champion li nga xam ne mu xam li xam ne moom moo ko war yaa mu mu a dee. jeex na hmm. géej yàgg na de. dem nañ géej noo xam ne lu bu baax ñu bëre fa du ma wax tur daan noo ci géej gi. Hmm. mais jour boobu noonu. ba ci guddi bi ba xaaju guddi maman mujjee ndox nongo noppi ndax ay jooy te boobu noonu ñu daam ñoo xamante ne comme xamuñu moom ba ñu demee làmb moom dañuy parier parce que ñun loolu la ñuy dund ñun làmb la ñuy dund am ñoo xamante ne nañ seen xaalis ne ko ñun ñu dem jëlee ko géej rek loolu lañ daj parce que mbirum mbër la kuy dem di wuti ah kuy dem di wuti am rek nga bëgg bëggoo leneen lu am mais suñu borom mooy teg leneen mais ñun bis ba yaa nañ suñu borom may ndam ci kaw Cheikh Tidiane Niang amul leneen ñu loolu lañ bëgg fi mu toll nii daan seeti jaan ñaa seeti leneen. gis ngeen ak jàmmaarloo ñu lay demee nañu dem xool li nga xamante ni mooy entraînement wu Ndongo Lo suñ fa jógee dem xool ki nga xamante ni mooy entraînement Cheikh Tidiane Niang te ñëw kàggu nañ dem xool loolu te ñëw. mooy entraînement Cheikh Tidiane Niang jóge fa seeti ki nga xamante ne mooy entraînement Ndongo Lo Diop ñoo gisee entraînement yi Ndongo Lo bi état foofu Ndongo Lo bi yooyu ah état bi daal rafet na trop hmm. gën a yokk rek am ci wax daal ah, mu ci état de forme mu liggéey mais en tout daal na ko gën a yokk daal maanaam lii a naa ko tuuti. Hmm. Hmm. mu ngi ci forme daal mais na ko gën a yokku. lu mu wut ci doole daal na ko xeeb. noo gisee entraînement Cheikh Tidiane Niang état de forme bi. Cheikh waaw mu ngi ci forme de de waaw yal na ko yàlla may jàmm rek. Hmm. ba bis ba yàlla may jàmm ci kawam ba tànku ñun fi mu doon loolu lañ soxla daal Cheikh Tidiane Niang seet leneen. mooy suñu production ñun ñëpp waa Grand Médine di woo waa Grand Médine gépp na ñëpp génn bu kenn des góor jigéen mag ndaw paaye meeri sax nañ génn parce que suñu rakk suñu xarit suñu doom mooy bëri te dafa nekk loo xamante ne làmb capital la donc làmb ji dañoo war am ndam amul am leneen lu ndam rek te ñoo soxla ñoo xamante ne suñu waa dëkk suñu waa koñ suñu waa bi nga xamante ne ñooy suñuy mbokk ñu ñëw jàppale ñu soutenir ñu ñu sante ne ñun ñooy suñuy mbokk ñu loolu lañ bëgg a ñu leneen noo gisee mooy loolu lii mooy loolu Ndongo entraîné comme saa nu wax rek day yokkaat cere doole ña boo ak jàpp seeti jaay daan ko. ñun lu ñu waaye conseil ci laam li ñuy jël moom sax bu ñu conseil dañuy jël dañuy yokk doole jàpp ko daan ko amul leneen. daal ko ci forme bi tout cas daal na ko gën a yokku keroog bis baa mu ñëw yëngal ci suuf yëngal ci kaw yàlla may ko ndam set wicc ci kaw noonu. non ci suuf doole ci kaw doo leen yëngal yéen ñun ku ñu xam-xam ne kaw ñooy borom ñooy yëngal ñooy ruube ñooy luñ saf loolu ñëpp xamee na ko waa garaam bi parce que <laughs> mafia la. PA ñoo moom. waaw ñoo ñoo combat bi bi dafa nekk combat boo la. yaa ngi dama bëgg waa ñoojoor ñëpp ñëw ñoojoor bàyyi wu kenn buñ ko daane saa yóbbu ci laa am na fu mu mën a yóbbu tamit dëgg la buñ daanee longu dina am fu mu yóbbu hmm. yaa ngi dégg mais en tout cas combat bi daal fonk nañ ko respecté nañ ko am na fu ko teg te bëgg nañ yàlla may ñu ci ndam lu set bi ci kaw Ndongo di woo waa parcelle yëpp un ba vingt six mafia la bàyyi nañ defar ba mu baax leen ko booy yéen parcelle fii ngeen yem te trois rek te ñeen ñi ñoo leen dimbali. di ngeen waale yaan si ñun fii lañ dëkku juddoo fi yoroo fi màggee parcelle eh, grande yow de yéen Cheikh Tidiane dama koy globaliser ak parce que yaa fi taxul Cheikh dëkk fi. juddoo fi yoroo fi màggee fi. waaw ñun fi leen juddoo yoroo fi mag ñu du booy town ñu du ñaay ay ay ay booy town lañ fi leen juddoo yoroo fi màggee fi eh, xam nga xam nga ñun fa amuñu feneen fu fii. képp ku ñu wax ne dellu ku ma ne ku ma dellu fa nga. man ku ne ma woon dellu fa nga dëkk. waaw a ñëw taxaw. ku dellu fa nga dëkk parce laa ñibbi. waaw fii la xanaa sam papa mooy mooy mooy mooy mooy kaako mais man ku ne ma dellu fa nga jug jikka ne ma dellu fa nga juge rek parcelle laay ñibbi non dama la bëgg wax ni parcelle ñoo ko moom parce que ñun fi lañ juddoo yoroo fi màggee fi waa ñoo doon waa ñoo doon. waaw boobu la ñu doon dimbali déggoo ma xanaa. mënul mobiliser. <laughs> Eh. a mobiliser ah, dañuy ñëw. dañuy fees dañuy stade occupé fépp. mais nga gis moom bu tegle 4 défaites 4 défaites sax benn quart. dama la hmm. c'est très rare nga gis mbër bu tegle 4 défaites. nga indi benn kaar dama la wax c'est très rare non dama la jox loolu ci stade loolu. non dama la wax waxuma eh, moom la indi de exemple laa la wax <laughs> dama ne la. dama ne la ah. c'est très rare nga gis mbër bu tegle quatre défaites ah, nga indi sax benn kaar nongo dafa tegle quatre defet waxuma la benn kaar de ay kaari kaar lu ma jour boobu dama jëkk jël sa kaar mais dama mujjee dolwaat yeneen trois mu dix kaar ci mbër boo xamante ne quatre défaites nga tegle kon waxtu maa ñoo xamante ne booy grand bi dañoo soxla wala am ñuy jël si xam nga temps la amee. xam nga temps la amee. yaa ngi dañ naan temps nga taalal jox ñu li moom. nii lay demee nga jox ñu li ñu moom. <laughs> <laughs> lay demee temps la amee eh, kaay. yow nangu loo nangu moo la gën a xam. fi mu hmm. dal baaxul. loolu c'est que soo nee nangu moo la gën a xam fi dal baaxul. làmb ji amul fu baax fi mu toll nii. am déglu ma amul fu baax parce que boo yëpp ñu ngi entraîné am déet ba déglu ma booy ñu ngi entraîné booy ñu ngi entraîné ñu ngi wut mystique ñu ngi jàng bëre. làmb ji gën a booy bu ci jamono gi ñu toll ci ci génération ñoom nanguloo amul parce que ñu ngi ñii ñu ngi jàng bëre ñii ñu ngi jàng boxe ñii ñu ngi jàng wuti mystique. ñu ngi dugaloon non non non bañ a loolu. waaw li mu kenn non lim kenn rek. na lim kenn rek ba ki demoon Ndiaye laa bëre ñu ma dugal ci làmb Cheikh Tidiane Niang. est-ce que du ko defee Cheikh Tidiane Niang. man damay ragal ci Cheikh Tidiane Niang. parce que lamb ji lamb ji. nongolo ku mu mujjee bëre. damay ragal ci Cheikh lay découragé. nongolo ku mu mujjee bëre. non non kon xamoo nongolo ku mu mujjee bëre du ma wax yow nga Alex Sangare yaa ma gën a xam nongo yow. boo ñaax boo ñaax la mujjee bëre. waaw kay boo ñaax la mujjee bëre léegi yow nga ne nongolo ñu ko jig ci lamb dépassé nañ ko kon lan lañ ko dépassé. yow yow yow sama. ah ñan lañ ko dépassé rek ne ne ko dépassé quoi. non malgré mi ngi tegle defet mais ba tey gisoo mu wàcc mi ngi avancé mi ngi bëri ñoo xamante ne dafa war a bëri ñoom. soo demee waxal ma nangu mu rus leen ci benn defet bu ko amee rus na ci wax mu teg la ko. waaw mu teg la ko moom bu sañoon du am defet. oui mais nangu daa. bu sañoon du am <laughs> defet naa loolu mais au moins xam nga rek nit boo amee ñu topp sa ginnaaw. am na ñu gëm. Mhm. Mhm. am jugee ñu jug. Mhm. yaa ngi am loo xam mhm. na champion yu fi gis yoo xam ne ñoom gis nañ mhm. ci ci ci simple fi mu toll ay defet la teg moom bu soñoon du teg laay defet yooyu. bu wax di dañuy waxtaan rek simple bu soñoon du teg laay defet ay victoire lay am. mais yàlla mooy dogal. lutte loolu mhm. benn. ni simple bëri wu lutte simple benn mbër ngay bëri. waaw mais ñaata mbër ngay bëri ñaata mbër ñooy bind ci biir. mun na nekk cent de plus. yaa ngi dégg. waaw seet yaa ñaar début de saison bu tojul fin de saison day toj. Mhm. li ma la gis nga wala gisoo. am na saison bi tojoo leen. yaa de saison bi ngeen xaar. déglu ma du simple laa la wax. ah pour man si si li ngeen xaar pour toj quoi. yaa ngi dégg <laughs> pour ñu la yéen. Uh-huh. benn entraînement la nii rek. Hmm. mais lan moo tax ngeen xeeb Ndongo Lo lan moo tax ngeen xeeb Ndongo su ma déggee li nga waxee ne Cheikh Tidiane Niang lutte avec simple bi. ak lutte avec frappe bi. moo bokkul parce que wanagul preuve am man si d' après man ci li ma jàpp. wanagul preuve am ci lutte avec frappe. soo déggee man la wanagul preuve am bàyyi ma yëgal rek booy jalgandeer yi booy nga xamante ne ni dañuy bëre ba naaw amagu ci booy nga xamante dañuy bëre di la boole ak ay ruxas ah. amagu ci amagul adversaire ñu amagu ah. jàng yëg. xaaral xaaral xaaral ba ba <laughs> dafa gàtt. Euh. non gàtt moom fi mu toll moom ko wax ñoom ñaar ñëpp ñoo yem. dafa neex a duma. Hmm. oui. bu weesoo général. bu weesoo général ba meeg ba meeg xamal leen de seet ah. yaa ñaar hmm. ay dóoram du bëri de. teer hmm. de. non ñun ay coup moom wax fa ne yàlla dinañ coup yu gën a dëgëru seet yaa ñaar. benn combat ngeen dóor général bu daal ku ngeen dóoree daal. non nañ ko coup bu bës a xam euh. seet yaa ñaar. de.

non waxuma la jugé fi mu toll nii yaa ngi ci waxu jugement ma waxuma la ay waxu jugé dama ne la suñu génnee nga laajte ñii xamuñu Cheikh Tidiane Niang te ñii xam nañ ñongo déglu ma rek suñu bëreeg ñun Cheikh Tidiane Niang dañu koo dimbali pour mu am buzz ñun dimbali suñu bopp parce que ñun gën ñoo bëre dimbali nañ suñu bopp parce que am am amuñu avance te soxla nañ làmb kii bëzam ma jox Cheikh Tidiane Niang waaw ah, kii bëzam déglu ma nit sax day am ndam di ci am buzz mais kii ci ah. defet la ah, defet parce que xam nga tax. Hmm. ba def li muy def yëpp rayante ba loolu xam nga loolu da ngay loolu non boo xoolee benn defetam moo leer nañ. Ah, defet yi ñu wax yow man man góobaay defet la. sama cameraman moom muy signalé nee na temps man li may tàggatoo yomb na mooy waa Garaam bi ñu jug jàppale leen. ñu loolee loolee mooy suñu mbébét nañ jug jàppale suñu raq suñu xarit suñu mbër suñu doom ñun ñëpp nañ jug jàppale ko te xam ne nongo ñun moom la ñu am ñun waa Garaam bi amuñ na waa parcelle 1 ba ma kenn maa ngi gërëm nag. waa mafia bi waaw ñu ngi ci per. te nag Olof Ndiaye nee na mhm. euh, boo xamul fa nga jëm ba ànd mag mu jiite la bu soobee yàlla leer bi dina leer si yoon yoon bi day leer nañ. te seex yoon la rek bi ñuy jaar nii rek benn affaire bu ñuy wane nii rek instant yii benn affaire bu ñuy wane rek seex mhm. Tijaan loolu def benn leçon bu ñu war a ñëw tari la nii rek jaar dem. yoon mënul jaar incha allah on ci yàlla may ndam de wax ji moom jarul ñu bëri. nañ yàlla may ndam parce que saa yi fi ñu toll nii mooy maanaam jamonoy wane lañ toll ñun yàlla nañ yàlla may kàttan ak mën-mën ba bés ba liñ bëgg ci Cheikh Tidiane Niang ñu jàpp ko daan ko ci kàttanu yàlla. ba amoon looy tàggatoo looy bi hmm. hmm. waaw di wax ne bi dafa xam ne dafa am fu ko teg dañ ko respecté donc ñoom ñooy jàppale seen ñu defaral gan waaw gannaaw comme comme ni ñu ko ni ñu ko daan defalee hmm. ñu woo tamit hmm. ñu ñëw comme ni ñu daan ñëwee mobiliser yaa gën a xam ñoom dañuy tàcc ci seex lu ne chaque lamb dañuy ñëw mobiliser def seen t-shirt yu rafet ñëw waa Espagne waa Espagne mag yaa Cheikh bi Espagne. nga xam ne sa combat dañuy cotiser lu dul. waaw defe waaye ay ñoom Eto gaa yooyu yëpp ay yeneen mu kenn ñu leen di bu baax di leen wax ñu jàpp ci la mbër ñëpp la yaa ma gën a xam di kenn daal waa séeréer bi ndox mi ñëpp bàyyiwuñ kenn te ñëpp ñëw daal ñu jàppale seen doom ñu am ndam ci kaw mu ñu daal la amoon lu ma ci sànni. Mm-hmm. gis ngeen ñi leen di ak jàmbaarloo Wassare Lamb ñi leen jot di leen wax na nag combat yi taxaw ak yi taxaw wala yi waaj a taxaw buñ ci dégg ne combat la wala ñi nga xamante ne taxaw na pour l'instant dañ leen ànd fii ñi nga xamante ne ñooy ànd ak mbër wala ay supporters wala ay amateurs yoo xamante ne dañuy dund làmb toog waxtaan ak yéen ci làmb yi jot a taxaw waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moo ëpp làmb ni ma koy waxee rek Wassare Lamb ki naan benn ñaar ki naan saam ñaar ñoo yem Wassare Lamb daa ñu ne saam ñaar ba tax na nag nii la leen koy defaree di ci nuyu ki nga xamante mooy Zubaay ah Zubaay sama jabar bu baax bi moom mu nga mooy anniversaire ndax xam naa la ñëwagul chaque jour moo la ah, moom tamit day def anniversaire la 15 maa ngi koy baax a baax di nuyu sama xarit bi nga xamante ni sama xarit bu bees bi temps yow laa kenn du di nuyu kàggu moo nga xamante ni baax ak ñoom aadama benn a baax. te xoolal bu jour ba. Ah. ñu xam ne Cheikh Tidiane Niang gënul doon ndongo séeréer. Mbaaru da ñu gën xam ne yow gënuñu ko doon séeréer. ndox mi ngay woo. waa Réfane ñëpp ñu xam ne yow gënuñu faa bokk yow. <laughs> Ah, waaw ndam rek.